bëgg di ànd ak samay nitu démb quoi vraiment aduna lu yàgg nag dëgg la quoi boo xoolee sama entourage yëpp ñoo commencé zéro ba léegi quoi a dafa am solo waaw. mais moom boo ko bu ma gis mu ànd yow dama naan est-ce que ñu am ñoom ñaar bokk ñu ndey ak baay ndax cofeel bu mu am sa diggante ak moom lan la da ngeen a màggandoo wala lan la. waa kii ñoo defandoo lépp ba ñuy commencé ñuy jàngal naan ñu boo jàppee tàng nii ngay def boo jàppee ngeen li ngay def ba léegi mu a yàgg quoi ba pare moom sama sama frère la sama doomu waaw àdduna noonu la da ngay ànd ak say ñi ngay àndal yàlla lu mu la may nga jël quoi sant yàlla li tax nga ñëw la ko laaj ndax sa diggante Kandji mais nan nga gisee ñaari mbër yi ñàkkul ni kenn lag na nga gis ko ci géew wala kenn jaar ni nga gis ko nan nga leen gis waaw macha allah combat bu neex la combat amateur la waaw de ñaana ñu bëre ko ci jàmm ci fair ñu moytu tamit coow xam nga bëre ko ci rek yàlla ku may ndam ñu xam ne moom la may quoi mais combat bu naa Lac Rose na combat bi quoi xam naa fi mu la ak nu mu demee mais gis naa moom ak équipe Fass ak équipe am bëgg nañ combat bi quoi mais aussi ki muy bëree adversaire de taille la waaw muy Balla muy muy muy Fils de moom it champion la quoi adversaire de taille la donc dañuy ñaan yàlla rek suñu bopp lu le leen may rek ñu xam ni ku nekk lu mu la may rek nga jël quoi mais ñu bëre ko ci combat bu ne amateur yi kontaan incha allah. kontaan ci yow jaajëf. aywa waxal Mouhamed mu demaat plateau na demaat plateau ma dem fële. jërëjëf léegi nag góo nga commencé waat fi nga nekkoon. waaw waaw. Palla gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi. waaw ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax. waaw may sant nag sama sëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou borom Makaarimal Axlaaq. waaw di nuyu waa kër Sidi Hadj Malick bu baax. di nuyu waa kër Maam Baye Niass waa kër Maam Limaamu Laay di nuyu Cheikh Adama Sène Cheikh Ndigal Sène bu sëñ Abdou Karim. ndeysaan di nuyu sëñ Bass Mbacke si nii nii. waaw di am mbégte lool tey tey teew bi. ñëw fekk sunu doomu day sunu frère sunu xarit muy Kandji production. léegi nag go. di nit ku baax. ñu xool combat bi. waaw eggale waxtaan wi ndax combat bu am importance la. ayca ñu xool ak caatu yof. ayca ñu xool combat boo xamante ni. Perpala. Boy Malika. Sa Thiès ak Boy Malika ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. ñu ngi lewtoo de. Sa Thiès moo féete à Sa Thiès moo ngemboo ngemb li am lu wert li ci ginnaaw lu weex li li am lu wert li ci ginnaaw Malick Ngom mooy arbitre nee na ngeen bëree waaw arbitre baa ngi wax ak ñoom de waaw booy Malika moo féete à ngemboo ngemb lu wert li Sa Thiès bu ngangu ni Sa Thiès bàyyi caaroy Sa Thiès ay léewtoo noonu moo féete à gauche moo ngi léewtoo de ngemboo ngemb lu weex li booy Malika ni teg ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ñu ngi léewtoo kurpañ amagul de ah arbitre bi dina wax ak ñoom de dalagul arbitre bi dina wax ak ñoom ndeysaan avertir na leen ngi leetoo Sa Thiès bu ngangu ne ak Boy Malika ak Boy Malika Boy Malika ne combat bu mujj caaray la duggoon non Boy Malika nag ak Boy Lo xale bu xale la boo xam ne Boy Lo mii nag waaw mook Sa Thiès ñoom ñaar ñoo bokk igri waaw ñu ngi leetoo ñoom ñaar waaye kurpañ amagul de congu dalagul. Boy Malika. Boy Malika. waaw. Sa Thiès daa bëgg a dem wala. Boy Malika. Sa Thiès daa a dem wala. mi ngi accéléré leewtoo bi. ndeysaan. ndeysaan. Boy Malika Sa Thiès bu ngangu ni. ñu ngi leewtoo leewtoo bu dib waaw ñoom ñaar ñu ngi leewtoo ba Kurpañ amagul congu dalagul ñoom ñaar ndeysaan ndeysaan Sa Thiès bu ngangu ne ñu ngi léewtoo léewtoo bu dib ak Boy Malika muy huitième combat de la soirée ndeysaan buñ ci jógee dem ci combat spécial bi dox ci diggante caatu yoof Boy Kiri yoof mais arbitre bi dina leen avertir parce que ñoom ñaar dañuy léewtoo rek kenn jéemul dara ragal naa arbitre bi dina wax ak ñoom. ndeysaan waaye na père Palla maa ngi wax mais aw ma sa retour père dégguma la père. ah. dégguma la de. amuloo retour bu ngeen mënee may Thier retour ci kaskam. booy Malika. Thier maa ngi lay dégg nañ la may retour. Sa Thiès Sa na may demul. Sa Thiès bu ngangu ni ak booy Malika. teewaayu go parfum. teewaayu suñu xarit go parfum. l'infatigable borom teraanga ji. ba tey amagul. waaw jël na ko jël na ko jël ah, ko. waaye booy ah booy Malika daa na moytu booy Malika. caxabal eh, eh, na ko. Eh. booy Malika mais Sa Thiès ndaanaan la de. Sa Thiès ndaanaan la waaye booy na moytu booy Malika jàpp. booy Malika. na moytu mu jàpp. Sa ngi bëre. ku nekk am nga ngeemu sa loxol morom. action ah, songole caxabal. Ah, ah bañ na muraay ci moom Sa Thiès. ah xëy na ko waxoon naa la ko. Sa Thiès bu ne woon naa la na moytu mu jàpp daan na Malika. naa la na moytu mu jàpp daan naa na moytu mu jàpp. a bëre per. ba mais mi ngi bëgg a jeexal xale yi. nañ ko bàyyi xel per. nañ ko sóoraale. daa bokk ci làmb. non mi ngi jeexal xale yi mi ngi jeexal yi moom Sa Thiès. ah, ah. daan ko jëli bu rëy. ah mi ngi noonu. oh Boy Malika. Boy Malika dafa dangereux. daan nañ Boy Malika. ah Go Parfum égalal Fils de ngi noonu di daw di ñëw ànd ak kótsam Fils de ngi noonu ànd ak kótsam président président na lam ñu lay ziar yaa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah. dégg nga laa ngi noonu. waaw moo ngi ngeen ko tey de nu mu demee da a tiit waa Fass la. ah tiit ñu loolu moo ñu war ñun kay yaay dañu am lii moo war waaw. Balla ba xaar. Eh, danga maa bàyyi. danga bàyyi nga ma. yow yaa ma bàyyi. man nan laa la bàyyi. maa woo. Eh, maa la mujjee focal. man maa la ma mujjee woo appel normal. maa la mujjee vocal yaa ngi ci jàmm. Ah, ngi sant yaa ngi amateur yëpp namm sa combat maa ngi sànq ci direct bi amateur dañu namm sa combat Sénégal namm nga toog rek nekk si sa ruq lan moo tax nëbbatu bi. waaw xëy na amateur yi ñoo bëgg sama combat man tamit bëgg naa bëre bëgg naa bëggal samay supporters bëgg naa bëggal sama mbéjaam ba tax na daal ñu ngi toog suñu ruq jox ñu bëre Baye Ndiaye mu joxe na benn date ni le 23 juillet Balla Gaye dina ci bëre dans 6 mois Balla est-ce que mu ngi logique ci logique gu bëre le 23 juillet. yàlla yàlla dogal moom la amateur yi moom la supporter yi bëgg date boobu la ñu yàlla mu ñu confirmer ko incha allah. lan moo tax Balla amateur di ko nam. xaw ma xëy na làmb rek am na ñoom kenn ku nekk seen soit ñii ñii mooy seen mbër ñii ñii mooy seen mbër ñii moo tax amateur yi. moment yii nii boo duggee ci làmb lan ngay yëg. yëg-yëg bu garaaw parce que da xool milliers de personnes ñuy bëgg la ñuy sopp la tellement que da ngay xam ne làmb dafa neex waaye nit tamit si lépp lu muy def rek na ci góorgóorlu ba ñëpp am ci ay soppe d'une yu baax wala yu bëri incha allah. kan lañ la proposé instant bii nii que maa ngi dégg Tapha Tine maa ngi dégg Siteu Siteu moom. làmb Balla Gaye 2 man la war a bëreel Balla Gaye bu bëreewul ak man daf ma ragal la beneen adversaire Lamine. Ada Fass nga mujjee daan. waaw Balla Gaye a ngi nii Balla dañoo eh, amul lool de. day war a bëre wala waxal lu leer. jox ko ñaas ñaas. non jox ma ko dinañ ko jox. kon Balla pare na. parce dafa toog ay at yu bëri bëriwul kon nañ ma ko jox nag moom xaalis. kon jeex na leer na buñ ko dëggu leer na. jeex na daal jeex na. nit ku baax la du sànni nit loo mën di wax ci moom tamit bu la gisee day mel ni yéen a bokk ndey ak baay nit ku baax la mën du ma daw peloton ci nit mais yàlla na ko yàlla defal jàmm. bilaay walaay Balla yàlla la yàlla defal jàmm yow. Balla. dégg naa sa digganteeg Siteu dégg sa digganteeg Tapha Tine waaye Siteu bi moom dama dégg ni bëggoo ko lan moo tax bëggoo combat boobu. non man bañ ma benn mbër koo bañ tey suba di ko bëgg sport amoo droit di bañ kenn tey kenn xamu lan la boo bañee tey kii suba di nga ko bëgg parce que xamul lu ko yàlla dafa ëllëg donc moo tax sport ku ñu yàlla boole rek dañuy ko dàqoo. non bañu ma dara man ku ma yàlla boole ma ñu bëri. Euh, bàyyi ma fi kenn ku ma yàlla boole moom la. mais Tapha mi est-ce que ak Tapha bu njëkk ma benn la. non yooyu du problème man moom aw ma problème boobu ay Tapha nii wala jiw nii wala nangam ak yow amoo ci problème. ki ci nii noonu ak ak bi benn la ki ci nii noonu. waaw mbapat dañoo mbapat dañoo mbapat dañoo mbapat xam naa ko baax. temps yii mu ngi ci MMA bi de. Ah, yi day jóg tànk tànk yi day jóg wala lamb amul tànk nee na lamb amul tànk waa Guèye waaye ngi noonu. waa Géeja waa ngi noonu Fils de Balla a ngi nii waaw.